dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo gi Macky Sagna mi ñu tëj ci kasu bi moom ba léegi nii génn gul ci mball gi journal bii di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag danañu amati lu leen naqari ndax ay avocat yu Macky Sagna ñoom nag dañoo dugaloon ab càkkutéefu bàyyeb ne gëndiku waay nag dañ ko kaa daa di lànkal journalu Pape Jogay fay bii di direct news moom tim xëy di ko daa di dëggal ne ah kay Guy Marius Sagna ay avocat am dañu doon sàkkoo ngir ñu bàyyi ko mu féex waaye nag loolee dañu kaa daa di mujjee gàntal Assane Samb jël xalima imaam ci yéenekaay gii di réew mi quotidien daal di bind ne kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi war nañoo déglu askan wi ba pare nag jóg ci dundin wi ndax nag li nga xam ne mooy raam jamono ji nag ca ñag ba la jëm te bu fa amee kër du baax kilifa yi ŋànk réew mi dañu yokk ay njëg te duñu ci indi benn explication te révolte sociale mën naa am fipp goo xamante ni kenn du xam maanaam fan lay yem te bu boobaa nag dina toll foo xam ne kenn duutu ko mën a téyeti jamono ji li nga xam ne moo am ba des te kilifa yi déglu askan wi nga xam ne billah turbine Thierno Alassane Sall ñu daal di ko fay fekk moom mi nga xam ne ay jamono nekkoon na ministre bi ñu dénk wàllam énergie ci réew mi dafa xam ne ne yokk courant gi sañ bañ la Macky Sall de see mënul dara ndax banque mondiale ñoo ko nag exigé ñoo ko xooj force nag Macky Sall yokk ko ndax dañ ne ko daal soo ko yokkul duñu la abal nag loo xam ne toll na ci téeméer ak juróom-ñaar ci ay milliards loolee moo daal di tax Thierno Alassane Sall moo xëy di ko daal di xamle liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum yoon syndicat boobe nag ñoom daal dañuy dugal ab préavis de grève la leen naqari accord yoo xamante ni si fe woon ko ak gouvernement bu Sénégal te ba léegi nii respecté wuñu ko journal bi di réew mi ko di moo xëy di ñu ko xamal yéen a kaay gii de la témoigné xëy di wax ne pétrole ak gaz bu Sénégal loolee nag tax na gouvernement bu Sénégal bëgg jël dogal moom tim di ubbi ay station di jaayal boppam ci Sénégal gi yëpp journal bi ñu fekk fa Racine Talla mu xëy yëkkati kàddu ne wax ne Macky Sall du jël benn yoon risque maanaam di indi étudiant sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ca Chine te foofee nag jàngoro daal de say am Seydi Gassama nag aha kay kon nag jamono ji ñoo ngi doog xam ne état bu Sénégal Sénégal dafa lànk kandaare bañ a soowee ñoo xamante ni rek ñoo ngi ci ay jafe-jafe man ko xamle ci yéen kaay gi di direct news moom Seydi Gassama ba tey ci biir journal ñoom nag ñu daal di xëy fekk fa waa LD debout ñoom lu ñu yëkkul Macky koo daal di fàtte ndax nag ñoom nee nañu am réew kenn du ko yor ci ay caaxaan ki tappale ak soxor ñoom daat nañuy wax ne Macky Sall nag dafay jël ay contrat yoo xam ne daf koy signéel waa bitim réew te amul benn yoon boo xam ne njariñu Sénégal ma nga sa waa LD Debout na nag 2020 bi dina tàng jër ndax réew moo xam ne drogue bi ma ngi fii jaaba jonge subaa ngoon guddeeg bëccëg ñàkku kaaraange gi ni mel ni tulleeg màlle jàngalekat yi nekk si mbedd yi kasaalika ñi nga xam ne ñooy étudiants yi Sénégal yi nag jamono ji ñuy dund lu méttee métti yéene kaay gii di 24 heures moom ti mu xëy nag mel ni kuy conseiller Macky Sall naan ko Macky Sall dellu sil ci réew mi ndax étudiants yi nga xamante ni ñoo nekk sa Chine ça ne liberté yi ça vapa va pas dundinu askan wi tamit ça ne va pas a mu ñu xamal lañu nag Macky Sall daal am moor ndaje dëggantaan la li Macky Sall yi tukki ci boppam moo jaaxal askan wi ndax fukki fan ak ñaar ci weeru mars atum 2019 ba ñeenti fan ci weeru février 2020 Macky Sall tukki na ci loo xamante ni toll na ci fanweeri yoona Macky Sall mor ndaje dëgg la du rate lenn lu xew Macky Sall ma nga sa bi nee na Istanbul sax dañu fa doon inauguré li nga xam ne mooy juma Macky Sall jóge woon ci réew mi dem journal bi di source a ne Sall nag li muy tukki jaaxal na ñëpp yéen kaay gii di Sud Quotidien ak L'As yéen kaay xëy nag ci accident yi nga xamante ni mooy jaaba jonge ci réew mi journal bi nee na at mi bi ñu ko nattee xayma ko toll na si juróom benn junni yu toftal juróom-ñaari téeméer ak fukk ak ñett ci accident yoo xam ne daat nay am L'As yéen kaay ne accident yooye nag bi ñu ko xaymaa lu toll si juróom benn téeméer ci ay nit ñàkk nañ sa seen bakkan bi ñu xaymaa dégâts matériels yi maanaam toll na si juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay milliards observatoire de qualité des services financiers ñoom nag ñoo ko daal di xamle ci ab séminaire yéen kaay gii ginnaaw mu ñu xamal naa ñu yéen a ngi fàttaliku Mohamed Cissé américain bi nga xam ne moom lañ rayoon ca diiwaanu Kaolack am na ñaar ñoo xam ne jamono ji teg nañu leen loxo njort ne ñooñe nag daat nañ siy laale waa Grand Place Vox Populi Le Témoin réew mi quotidien xëy nag ci nappkat yi nga xam ne ñoo nekk ca diiwaanu Ndar te doon jàmmarloo ak takk der yi lu toll ci fanweer ak benn si ñoom daat nañ leen di dugal ci kasu bi journal bi mu ñu xamal naa ñu tey ji nag boo moytulee danañu daal di jano ak procureur yéen kaay gii di sunu làmb mu ñu xamal naa ñu Modou Lo ma mu bëree ak Eumeu Sène Sénégal Tafa Diop ma nga xam ne moo tëggoon combat boobu amel na ko lu toll si ñaar fukk ak juróom ci ay millions moo duloo wax na ba tàyyi dox ba tàyyi ba léegi nii France daal di xëdde na moo tax mu xëy fàngaam ci journal bi di sunu làmb di xam le ne maa ngi daw topp si ñaar fukk ak juróom ci ay millions yoo xam ne dañu ma ko daal di ameel